Sarr c'est de côté. waaw ci ma côté lëmbala la gën a loo mën a am. ca lu ma am lëmbala ko gënal Pape Diouf da ngaa juum. waaw Cheikh Sarr lëmbala ko gënal. non télé baa ngi toj télé baa ngi toj. nga may ma wurus may ma xaalis mbaa dubi doon. way gumbee. ma mënta am dignité. wurus xaalis mbaa dubi doon. gumbee. ma mënta am sincère. jàpp ndigal oui oui oui oui amoo way bu riis oui oui laa la oto yu bari lool man ku dul riis si amoo way bu riis dañuy dee sa gura bu ndaw oh waaw waaw dignité dignité waaw soo ko amee foo jaar ñu fonk la ay jot tubaar fa kàll mi ngi noonu euh, Papa Ndiaye Thiou la ñu dalal tey ci euh, studio El Hadj Mamadou Ndiaye doos waaye tamit mu feggoog ay rakam ay xaritam yoo xam ni tarfakala ñoo bokk aar bi di euh, ma xujja waaye Fatou Sarr ma nga xam ni tarfakala ndigam weetul waaye kii di njàpp mi nga xam ni tarfakala mooy feccal Sidi Diop tey ji nee naa leen émission bi di ko di ko di ko seetaan ci di ko déglu ci rajo wóorul. émission bi li la ci mëna a moy nga dem ci page officielle bu Sen TV mba nga dem ci page officielle bu Zik FM mbaa nga dem jàpp Sen TV parce que ay fecc kat lañu dalal ay ndaanaani fecc kat lañu ay fecc lañu dalal tay bo xolé liñu fecc ci Pape Diouf bayiwuñ ben bàkk. déedéet bàyyiwu leen ben bàkk mais euh, Papa Ndiaye am pecc buñu ñu musique ba lan nga wara a déglu lan nga wara fecc teug mi nga wara fecc. wala bok li nga xadi mom moy guitar ba nga wara a fecc parce que man Pape des fois ma deggum teug di deglu teug ma may yow feccoo teug ma des fois damay gis ngay fecc melodie pap lolou lumu waaw Cheikh lolou nga laaj. Hmm. laaj nga lo xamanteni da fay dimbali ñu bari. deug la. parce que damay fekk nit ci kaw ci biir sabar. Hmm. mu jomal ma jaaxal ma lol mais su ma ko indee ci musique dootuma mako xamé lo wax ni waaw kon nit mën fecc ci sabar te boko ko ci musique du fecc. am na ñoo xamante ni. Ah. dama leen a faa man. dëgg la dama a faa maanaam damaa xam ne ñii booy wër ko mën a fecc ba yem ci ñoom danga naan ñii ay jinn lañ. dëgg la mais boo leen gisee kaw seen du ñu xam fu ñuy taxawee du ñu xam fu ñuy commencé du ñu xam fu ñuy jeexale kon tëgg du tam mën naa tëgg ci sabar te du mën tëgg ci musique. waaw ah, musique bokkul nag ak ak tëggu mbedd. parce que tëggu mbedd bu dee njàpp ne bërët. Mhm. borom sabar bi da koy topp njàpp lay topp. Mhm. mu teg tànk mu teg fa galan mais bu dee musique day carré. dëgg la cest li nga wax xaaral ma leeral la ko man bu mu fi mu toog laay toog. Mhm. mooy ci batterie ba laay toog pied. ah yow pied bi ngay dëgg këk këk waaw parce que sunu papa Souleymane Faye da ko décortiquer. waaw nee na ñun Sénégal. Mhm. problème pied lañ am. dëgg la. waaw parce que tubaab bi ñoom mhm. dañ koy def ci genre benn biir lañ am. dëgg la gi tas gi gi tubaab boo gis fa lay baal. dëgg la tubaab boo gis loo ko tëggal fa lay baal. mais xoolal Pape Diouf fi mujjee ak ak yaabu composé. dégg naa dëgg. waaw. c'est-à-dire yooyu yëpp il faut nga koy comprendre ba pare xam fi ngay duggee ci musique musique lu waykat bi danaan bëreet rek nga ne bëreet dëgg la dafa am yoo xamante ni xaaj bi ngay fecc mhm. am morceau yoo xam ne fin bi ngay fecc mhm. am morceau yoo xam ne début bi ngay fecc am yoo xamante ni lépp ngay fecc mais bu dee musique mhm. boo nee bëreet da ngay déglu pied ba dëgg la pied ba moo jiite lépp pied pied bi mooy jiite parce que mooy mooy def tàkk tàkk ñu doog a dugg. dëgg la moom mooy gérer lépp. moom ñëpp parce que même son Pape Diouf bi dignité bi yaa ngi dégg am na ci foo xam ne bu fa tollee naan day yuuxu ne lu ma mën a am moo ma gënal. nga dégg pied bi ngaaj dégg dégg loolu dafa garaaw. parce que huit ans la un deux trois quatre déglu ko est-ce que est-ce que bu ma ca tolloo moo xool ba xam tollu naa ca déglu. fii mooy Koundang. oui targa tara targa san daa daa ku nag waaw boobu la moom foo ko jëlee ku ci tëgg mi laa ko jëlee kawe yow nag fi nga ko jëlee fi laa ko jëlee mbete kudd mais mais kenn du Jules Diop kenn du Jules Diop kenn du euh, même même même même euh, Ibou Ndour waaw boo xoolee am na benn son Pape Diouf bi muy woyee dëgg la bi am na foofu xam ne da ngay dégg mu naan te neew neew Eh, te new neew ay <laughs> fii nii fii nii déglul fii nii déglul fii ah, nii déglul vent bi mu lay may. di fecc la déglul fii ay. mu naan tenew neew waaw ay tenew neew ay tenew neew ay tenew neew waaw am na fu mu koy di naan rëg mais nag Ibou Ndour rek tere gu rek ku daan tëj dañoo yónnee woon dibi affaire bi tardé ñu nekk ci rek meew ah. digi mu jàpp ko ñëwal naan cere ak meew bi ay cere ak meew ay cere ak meew ay cere ak meew wuy cere ak meew te Ibou Ndour ay cere ak meew non fi mu pas nii page officielle bu Zik FM ak bu Sen TV mi ngi toj waaye tamit fi mu toll nii Sen TV mi ngi toj mais ah. euh, de de dama bëggone xam parce que yow jamono bi ngay dugg ci am pecc. Mhm. fecc wul non noonu. parce que dugg nga ci jamono jo xam ni ci pecc metti woon na trop Pape sa digganteeg naam sax même bo dé domi gëwol. même dé domi bour gëwol euh xawon na metti. parce que moment bobu fecc bi fayu non non. waye niñ ko waree joxee gëdd dëgg dëgg joxe wuñ ko non gëdd pap nga ñëw formé yow Papa ndjay ciu Ahmed ciu amadi badian ngeen di ñëw di fecc mëna joj metto na top waaw Cheikh laaj na lo xam gaay yi nanguwuñu woon waaw parce que mais liñu dimbali woon ñun hmm moy fiñu bok moy c'est-à-dire euh simbu kat bo gis rek jaar na ci mbappat deug la parce mhm. que euh, après ñom ñoo doon ay mbeur deug la kon amna lo loo boko defé do mëna nek ragal <laughs> mais tamit euh, li naan xaw ma lan buñ ko yabee ci doxin bala dëgg la ma ko jëm nii wala sama rakk njàpp koo ci gis muy dox. Mm-hmm. da nga naan kii day dosé wala leen fekk góor yàlla lañ. dëgg la. c'est-à-dire ñun mbapat yi njaar man seex mbër laa waroon doon sama yaay heure bu xëy di ma léemu. <laughs> ay waay papa Ndiaye da ngaa am maamu mbër boobu ëmma seen a may tooñ. Eumeu Sène heure bu xëyee yenu ma. Papa Ndiaye Papa Ndiaye nag bëggoon naa fekkee foo ngembo. yóbbu ma géej waaw ndaw ngemb ba dogali da nga ci teg ba dogali ma ngemb ba dogali. wuyaay yooyu mais xoolal Cheikh Sarr. Eh. bu Eumeu Sène di jàpp séeréer si fee di daan. Mm-hmm. man maa ngi ca xoolal maa ngi ca borom safari du kuruk. looy wax nii. Eumeu Sène day jékki-jékki rek dégg yuuxu yi mu tourné dem si man na man xamoon xam naa ne yaay dëbb foofu <laughs> léegi nag bu ma ñëwee xoolal. Mm-hmm. xool séeréer si ku ci gën a jeex ku ci gën a ndaw man noggatu la tànk bi moom boo la ko lonkee. waaw da ngay dem. waaw ma par mais bu ñëwul du ko dindi. mais dëgg la damay bañ nga def ma no mais mës nañ maa mbot mbot moo xamante ne sama dënn bi rëcc. waaw yow kooku moo bon. Pape dafa mel loolu dund. kooku mbot la ma lonk ba pare seet saa jiital li <laughs> xam nga ñu ba pare xool. waaw damaa yegg waa ji sama dënn ne xool ma ne am na ko gaañu. <laughs> nekk man maa gaañu. mais c'est ça une semaine may forote sama dëgg man na nag man na nag waxi waajur jarta caaxaan dëgg la lu bëri mu ngi koy yëg xaaral ma xool fi gën a nooy mm-hmm. ci laa waaw waaw mu ne ma fii nooy yow Fallou Dieng nga njëkk a feccal xam naa xam naa Zik FM ñoom Zik FM dañuy dem joxe journal bi ñoom mën nañu continuer joxe journal bi mais ñun dañuy continuer ci page officielle bu Zik ñu ngi continuer ci page officielle bu Sen TV mais ñu ngi ñu ngi continuer en direct ci Sen TV kon yéen waa Zik FM leen na rëcc kan leen ko ci télé bi ak ñaari page officielle yi Papa Ndiaye la ñu dalal waaye mu indi ay rakam ki nga xam moo di njàpp Fat Sarr waaye indaale ki nga xam ne moo di ma ma ma xujja ma xujja nag turam dëgg-dëgg la koy nëbbu xam naa dafa ànd ak pecc moo tax mu mu bàyyi ñu ci ma xujja gi. mais Pape kañ la gaa yi nangu parce yow après yaa ngi yéen a ngi commencé ci Fallou mhm. bi nga jógee ci Fallou fan nga dem. waaw fallu nak mo ñu téé suñu carrière fallu jeen daanaan yëpp mo leen feñal waaw ba par ndeysaan mok Salam Diallo dañu am lool mhm. lu ñu laal rek day day fess deug la yalla leen suñu borom fay lool amiin amiin Fallou nag dañu lu bari mhm. après ndeysaan sama papa Youssou Ndour fekk ñu Paris fekk ñu demone tourner mhm. ma ci gëreum babakar Diallo yahya ndjay deug la ñu nekk France mu ne ma nak pap mu ne ah, mu ne ma sama mak sama grand frère garu Thiello yalla ko yalla gën sutural ci aduna deug la moom moo amoon moom moo amoon wëri ma nak fekk ñu ne Paris papa Youssou Ndour na ma pap yàgg ngaa toj cosaan yow ci kër gi nga bokk. Mhm. te Gallo dafa waroon a ñëw yaayam wàññeeku. mu ne ma nag mënta ñëw. na ma nag dama bëgg nga ñëw ñu waxtaan ma ne ko man sa papa ngi fi. Mhm. mu ne ma ko il faut ma gisee sa papa mu boole ma ak euh, Mara Mara toog ak sa papa ñu waxtaan. mais nag pour wan la Youssou Ndour ku garaaw la. ku toll ni Papa Ndiaye Fatou Sall nga gis ko muy fecc nii rek nga war koo indi bési. la dafa bëgg sénégalais ku gëm Sénégal mais ma xuja Youssou Ndour su Ndour ci moom xamante ni c'est ça ndeysaan Bercy après daal tuuti ci man Youssou Ndour bi ma waxee li may wax ba pare ci ku ma sëdam après Bercy daal tuuti ci man ndeysaan danoo waxtaan ba pare mu teral ma waxtaan ak man na ma pap gis naa fi ngay fecc parce que bu njëkk ba ñëpp fi lañ leen jàpp waaw amul dégg baat va et vient la woon seen digg wala yenn saa yi nga changé naa nit mais fecc ci musique téye temps mu ne ma yow ku fi ñëw lay toppandoo mu ne ma fii ak téeméeri at ku ñëw Papa Ndiaye lay fekk par la force. ndax dafa da am lu yàlla dogal li li ko feeñal ko ci musique. mais mais mais mais ci ban ci woon Bercy naan il waxtaan Cheikh. xam nga tey njàpp lim sol dafa xaw a nduróog loolu te loolu dafa yàgg. <laughs> man may la lii rek. xam nga lu ma def a ñëw. waaw mais mais li ma wees waaw. li ma weesu yaa ngi hmm. dégg Cheikh moo ko Farsar sama papa jox ma hôtel teral ma jox ma per diem. Hmm. boobu affaire bi des na ay deux semaines. Hmm. jox ma xaalis jox ma hôtel na ma noppalu dalal. mais bi affaire bi desee ay quatre jours mu woo ma néegam teg feuille yi nii en tant que Youssou Ndour laa leex de na ma fils man dama su ma sañoon nga gérer Bercy bi. Hmm. mangaan moom su ma sañoon nga gérer Bercy bi na ma ngeen war a fecc ak yi ngeen war a fecc. waaye suma suma suma grand frère Sidiate Thioune RFM mi ñuy déglu jamono jii xam naa mi ngi rey boppam. kooku papaam daf maa bëggoon a bëgg ba parcelle. Uh-huh. su ma wëri woon ba amoo fa ma reer seen kër laay dem. nit ku baax a baax a baax ngay wax ni Sidaat Sidaat Thioune kooku uh, tey bu ma de bu ma bu ma lay joxe àllarba. Uh-huh. moom dama ko war a boole ci àllarba yi. yaa ñàkk ki ñàkk moom Sidaat Thioune. yow yaa simple. Sidaat Thioune da doon buy animé RFM buy wàcc man jiitu naa ko këram Mariste ba mu ngi dëkk Mariste. këram laa daan toog di waxtaan ba heure bu ma neexee ma ñibbi sama kër. léegi de commencé di animé ba ma doon su may animé dañ naan Sidaat Thioune ma ne leen sama mag la dama koo bëgg boobu maa ngi xam nga xale yi léegi dañuy toog ci rajo di animé jël sa baat sax ba naan da ngaa nduróog diw nga naan moom ma la ma daf maa fekk si

parce que day ñëw rek nga xam ni YouTube bi tey. dëgg la fii la nekkoon. mais Pape Ndiaye. Mhm. il faut nga may ñu il faut ñu dem ca la nga defoon Bercy ba. mais Cheikh lii am na solo de li ma lay wax. waaw ah, dikkal boo paree ma ñu Bercy moom il faut mu ñëw damaa teg dil. français yi nga làkk Bercy bi dama koy teg sa loxo. ku ku mës a dem Bercy man ma ngaa nga. mu ne ma fecc kan nga. Mhm. animation kaw seen mën nga ko. dëgg la yan morceau la ñu war a fecc ak yan mat yan yan la fecc. Mhm. ma ko père jox ñu ñu fecc ko yi ma yàgg waaw yàlla def ci ndam mu ne ma Pape fii koy toj. da ngaa mën fecc de. fital ma may ma jom ba pare na ma ay boo yéegee na maanaam daal kii ma quoi. dalay dooleel ma sama bopp. Hmm? ma ray sama bopp. parce que am na ñoo xam dañ lay dañ lay am na ñoom dañ jàpp. am ñoom dañ lay may yàpp boole laa xaj yi. oui. ñoom dañ lay may yàpp ba pare boole laa xaj yi. déedéet déedéet yow mayuloo yàpp boole laa xaj yi de. dalaa may yàpp ba pare sécuriser la ba sa biir kër xam nga nit ki des fois nit ki dina mën dara comme Youssou Ndour li mu la def keroog bersi di nga mën dara mais li nga mën ki nga koy séqal bu la joxul gëdd du feeñ mais bu fekkee li nga mën nga xam ni mën nga ko te mu ne ci yow am ci loo xam ni yeewuwul ki ngay àndal moo koy yee donc ki la jiite bu la yeewul rek li ne ci yow du génn tey jii bari na nit ñoo xam ne talent bi la ci ñoom fa ñu nekk dañ leen ko feeñalul moo tax mënut a feeñ mettre leen à l'aise mais da ngay gis nit koo xam ne day de ci benn bërëb di def la muy def mettre leen ko à mu dem ci benen bërëb ñu mettre ko à l'aise muy toj té pourtant ba mu nekkee ci bërëb boobu boko ko mettroon à l'aise mu firi aduna Papa ndjay loolu la Youssou Ndour def légui pap morceau bi faaw ñu ñëw ci nga may ñu la nga defoon nga ni il faut regarder les épaules Victor Hugo da yewade <laughs> mais et et et il faut tout le monde fait ça dal ni ok mais pap ya moom nit ñi Papa Ndiaye. waaw waaw. waaw waaw. dégg eh, ma oui ma. oui oui ma. dégal dégal dégal njàpp ni mu fëggee taal bi nee na ko. moom ni ñu di booy. c'est que booy yéen yéen yéen ay ay guincement de musique ngeen. <laughs> waaw. <laughs> non dañ koy dañ koy booy bi nee na nee na li Papa Ndiaye xool. dégg na dégg na. dafa mar dégg déggal Fatou Sarr ren daa marqué temps bi yow. <laughs> yow Fatou Sarr yow lëf nga. <laughs> moom nag moom nag moom nag. kon nag xanaa kon ku yéeg waat da jox sa morom. non ah. bu dee lëf la moom. Eh, eh. bu dee lëf la ku yéeg waat da nga jox sa morom. déedéet mag ñi Papa njaay mag ñi. waaw. boo nekkaan benn golo gone gu lécc mag ñi boo nekkaan gone gu lécc gu bëri pexe dañ naan la yow doom nañ dog ci yow ndax yow lëf nga de. kon de de la. waaw ah. njàpp lëf la wuy ma njàpp mi lëf lu rëy la. yow benn la mais Pape Ndiagne. eh solo près du corps de loin du corps nga solon <laughs> muy naaw loin du corps loin du corps. léegi eh. non loin du corps ba na ko jox César li ma solo nga ma solo loin du corps nga soloon keroog digg Bercy nee naa ko Papa Ndiaye yow xale yi bu ñu ñemee bu ñu ñemee Bercy dëgg dëgg dëgg dëgg ñeme ay seen spectacle yow la barke yonent bi xam nga nit ki li naan il faut euh, rendre à César ce qui appartient à César Papa Ndiaye xale yi bëgg xale yi bañ fecc bu demee ba tollu fenn fi yow la àll sàkk àll sekk fecc na ba jog li amu fi ndey xadi yi fecc na ba jóg loolu amu fi mais tay bu xale yi joxee fecc valeur di sañselu rafet lo xam ne mën naa dem bureau lo xam ne mën naa dugg palais lo xam ne mën naa dem foot ci nit ku bax ku ne yow la yaa ko rafetal xali top topp sa ginnaaw moo tax xale bu ci nangu rek jariñu mais ku nangul do jariñu Papa Ndiaye il faut regarder les épaules il faut tout le monde faire ça oh, que vous êtes là. Gouvernement, gouvernement, dellu doon bébé. Papa Ndiaye. waaw waaw ay ay ay. loo gën di naat xel yi xel yi mel ni baax. lu ma gën a sooree. daal di gis nag ni ma njëgee woon. Papagaï, son maman, non, tel ou d'autre. Voilà, bébé. Papagaï. Voilà. Voilà. Tu. Aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà. épaules. Il faut que tout le monde fasse ça, ok? Il y a un nouvelle danse qui arrive. Oh. Il Il faut regarder. Il faut regarder la nouvelle danse de Papa Il faut regarder les épaules. Les épaules. Il faut regarder les épaules. Il faut tout le monde faire ça. Ok. Ok. il y a gaañ de. demee daa am lu ma ci métti. Ah, ah sama papa Youssou Ndour maa ngi naan maa ngi wax samay erreur mu naan il faut tout le monde fait ça. waaw les épaules. ba pare moom tamit naa xool. waaw. <laughs> waaw. dox dox bi. su sa ñi lay seetaan. waaw eh, waay. bii bii ñi lay seetaan. cëy lii. Cheikh yaa ngi gaañ de.

Taylor, Taylor, Taylor, Taylor, Taylor, Taylor, Taylor, Taylor. moom moom amuñu fa daan laa daane. amuñu fa daan laa daane moom. kus. waaye ndey asu aaj. waaw waaw. di bi aaj mooy baayam. di bi aaj. ma ko ma aaj muy baayam. danaa bëgg danaa bëgg. wala su dee ñaar. Cheikh yaa ngi du birama jigéen ndaw donc ma fatim benn jaam sama Papa Ndiaye Seex nag lii daa am ku ma koy may. Ah? lii daa am ku ma koy may. kat nga koy may Papa Ndiaye spécialement sa jabar. sa sa jabar laa ko may lii. sama soxna moo koy may. sa soxna laa may lii. léegi man maa koy faj spécialement pour moom. waaye yow kii nopp na jabaram bi. yow jëlal lii kii la say mu neex. jabar jabar jabar nga xam nga xam nga bugaan nag dafa nopp moom yi uh-huh. moom yi foo ne bu yeboo nga ñëw nag non moom yi fi mu toll mi ngi seetaan non na ñëw moom yi ñëwal nag moom yi dana ñëw boo ñëwul fi lay taxaw suuf di grève moom yi dana ñëw moom yi dana ñëw de moom yi ñëwal non war naa ñëw dafa war a ñëw dafa war a ñëw moom yi ñëw dafa war a ñëw dafay ñëw du war naa ñëw war naa ñëw yaa war a ñëw dafa war a ñëw xadi mbay sa ya dafa war a ñëw mag yi waali sek daa war a ñëw sëriñ bugaan gi dafa war a ñëw kon dafa war a ñëw daa yi ñëw kon boog na ñëw danga ma faati benn jaam sama Cheikh yaa ngi gaañ de eh, eh, eh, eh Papa Ndiaye eh xam nga ma bëgg ngeen fecc ak Papa Ndiaye jalgati loxo ca kaw ma jalgati jalgati waaw jalgati classique classique. classique classique. classique. eh les danseuses aussi il faut regarder. eh tout le monde classique. classique <laughs> mais Cheikh. Youssou Ndour nag bu mu soxal. Youssou bu mu ñu soxalee de lii la ñu yóbbu nag. non lii la ñuy ñàpp nga ne foo ko yóbbu tegal. non non non Youssou ko yóbbu fii ren père. non ñàpp dem du daw du daw barke yàlla du daw moo ko jël du daw dem nañ ñëwaat dem. eh les danseuses aussi il faut regarder eh tout le monde jël kenn. loxo kaw ñu neexul ba neexul mais Papa Ndiaye euh, instant yii nii instant yii nii euh, Papa Ndiaye la lay fàttali et puis Papa boo gisee sa rakk yi di fecc ku ci mel ne njàpp njàpp moom dama lay seedal benn mbir dugguma ci xolam mais xam naa dara bëgg. kii ba may bëgg moom ko gën a waaw uh-huh. dëgg la. ci képp kuy ah. ah. boo ko waxee boo ko waxee Papa Ndiaye moo ne dégg naa dégg parce que dafa fekkoon affaire yi. Uh-huh. vingt. <coughs> mu yóbbu ko ba cent. dëgg la. laay barki Seydina Mohamed. te sentiru ko. te sentiru ko. dégg loolu. ba pare. da ko fekk vingt yóbbu ko ba cent te sentiru ko. barki day day partagé. wallaay. bu amee benn affaire. Uh-huh. day woo ay rakkam yëpp. Uh-huh. ñëw yokk leen doole. dëgg la comme dafa dafa ñàkk ki ba pare. man li muy def deug la xalé yi bëgg ko est-ce papa ñay numéro 2 yi bari nañ de waaw kessé du njàpp kessé dëgg la ah, bëri na ba pare ba pare moo jël waaw man mom man war man mom waruma sax wax ndax man may papa ñay man man man mom alaaji sax alaaji sax man may papa ñay dañ jàpp dama ñëw bu ñoom mako ko jël leen xaar leen rek ma ñëw ma foqati lépp ci ñom ne man la papa ñay vraiment non sama sama sama ki dama mësoon tok hmm. diko sétane ba may boobu may jang école bobu def ma sax aar. yow ban ki japp jang waw ban classe nga baye ma ngi baye 5e secondaire. lu wax ni. mom mi de motax ma ba. <laughs> jàng la ba ma dugal fi ba pare nga jàpp. sa papa nan ma yow yaa ngi bëgg bëgg papa Ndiaye mënoo mel ni papa Ndiaye. man man. léegi melni papa Ndiaye. man ak man ak papa billahi xoral xoolal boo ma bàyyi rek da melni mom man ak papa sa papa naan yow loy li ngay wax ni moy lan man ko baye rek xol ma rek xam nga ma xey def balak, watu watu xaw ko dir dir ju ndaw masa ba njaay dërëjëm yóbbu waaw jam ya billahi ndaysan ndaysan ba par def teint noir ba ko noonu xam nga parfois ma jékki-jékki xam nga sol ay verre melastiku ba par lu ñaaw la sol melastiku papa njaay xam papa naan ma yow papa njaay da la rob sol lu ñaaw nag parce que lu ñaaw ngay sol lu li nga li dama koy teg 20 fois. loolu yu na ci morom. heure mu amul invité moom li laay teg. bëri na ci morom. barke Serigne Saliou. Papa Ndiaye moom dañ koy ñaanal. Mhm. ndax. man mi moom wax dëgg fa yàlla bis mu am ba am oreille musicale. Mhm. yàlla ak moom la. parce ma oreille musicale aw ma ko woon. Mhm. damay toog xool man parfois Papa ma gis mu baal man Papa Ndiaye li muy baal lan la. waaw ma xool xool li muy baal ba. caméra bi jël ki muy kiy joué. Mhm. li Papa Ndiaye di bal ki jouer caméra bi ko koy jël mën naa ah, bu Papa Ndiaye li lay baal. li lay baal deug la day bàyyi sabar ba di fecc di fecc ki di di fecc guitare solo. waaw Cheikh wax na benn affaire est-ce xam nga Papa Ndiaye bu tolloon ni Bombardier mo ñu la làq fecc ñun ñep waaw kilifa gi mooy kilifa gi déggee. deug la nit du fa déggee man damay damay day fecc ak man des fois. barki Seydina Mohamed day def benn affaire bi ma xam ne kii fekk moo ko bëgg. parce que parce que moom yenn saa yi day ñëw di ma wan ne xale laa. jagal micro ma wan ko affaire bi nopp la. màgget. moo ko jël mës nañ mës naa mer benn kuréel kilibu Assane Ndiaye. màggetum jinne musique musique ne fii moo ba day ñëw ba daanu. topp sama moom xam nga daf maa bëgg. dëgg la ma ne ko dof du ma ne ko bàkk yi day ànd musique raay la ci kaw raay bi ngay tegu dëgg la waaw ci kaw raay bi ngay tegu bu dee concert nag njàpp moo ko moom Sidi Diop moomu ko wala ñu partagé ko ñoom dégg naa dëgg parce que ñoom ñaar ko war a partagé mhm. mais bu dee soirée mhm. yow fekk kat influenceur nga mhm. ñëw balloo ki sol lu rafet comme yow na ko tey ñun a sañse mais baal la fi indi ñëw ñu baal nga ñëw foog foog moom baal ba mu jóg nga yoxos bàyyi leen ñoom waykat bi wayal leen <clears throat> mais am na ñoo xam dañuy ñëw rek mel ni concert la déedéet Les léegi damay parce que instant bi Zik FM jël nañu direct bi ñu ngi sétane euh, ñu ngi Zik FM 89.7 mais Zik FM da ngeen di sétane mais yifi fait du déglu yifi du déglu yifi sétane la il faut ngeen dem ci page officiel bu Zik FM ak bu Sen TV ngeen tok fa bu féké télé jege na jappu TV parce que ay fecckat la lañu dalal fi mi ngi mais mais xaar def est-ce que ni dina baax. si Diop a ngi toj ba neexul neexul ba neexul mais gars yi yëf yi du du ci bi la mais yëf yi mi ngi ci télé bi yëf ci page officielle bu TV ak bu Zik FM ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan dafa am benn morceau boo xam ni moo ko jël puusal nii tuuti rek télé bi mu dafa am morceau boo xam dama ko bëgg a teg parce que musuma ko déglu de nga bëgg tegal. non dafa am morceau boo xam musuma ko déglu. non morceau man xamu tax ma xam morceau morceau wa fecckat bu nekk day am morceau boo xam ne day nekk sooyu ndëpp morceau bi may teg damaa bëgg yéen bu ngeen toogee rek mu wee ak Papa Ndiaye am lu ma ko ci morceau bi ah. wayu ndëpp la ci yow pap maa ngi ñëw yéen ñi ne ci télé bi gën leen concentré wu ci télé bi bu leen ma seetaan ki damaa bëgg sa rafet tey. non a bànn. dafa mooy yoo xam ne wayu ndëpp la. xoolal. <laughs> <laughs> léegi léegi. léegi léegi léegi léegi dama leen di fàttali. que ni ñu ngi Nestlé Cerelac. tuuti ma mere la na paquet bu ñëw andi. bu ñëwaat ah, eh, joxal ma palaat yow ak ndox. Nestlé lay def rek baax na ci xale yi xale yi am 6 mois ba 8 mois mooy Nestlé Cerelac Fatou yow yow il faut que il faut que. Yo, il faut ngay il faut ngay naan serelek ah parce que ça fait du bien. <laughs> Eh, am na kudd yow ak ak bool. pour xalé yi am pour xalé yi am 6 mois ak 8 mois la Waye mag ñi dañ ci wara yek yëg seen bopp muy nestere serelek bii boo koy xoolalal xalé bi amna vitamine yep amna vitamine A B D amna vitamine E amna calcium amna zinc amna oméga 3 ñu fàttali leen tamit ne Jollof kan jamono ji ubbi nañ ko Sénégal ci barab yu bëree bëree bëri ci Sénégal foo dem da ngay am jolof ci kan waaye démb lañ doon ubbi jolof ci konu Gàmbi ça veut dire que Sénégal amati na ndam waaye économie bu Sénégal gën naa yokk Gàmbi googu ubbi nañ fa ñaari jolof ci kan démb ci teewaayu ambassadeur euh, euh, Sénégal ca Gàmbi waaye ci teewaayu ministère de la culture waaye ci teewaayu kilifa yu bëri foofu ca Gàmbi image yi naa ci kanam tuuti dinañ leen ko may donc euh, Jolof ci kën dafa na beneen jéegu li ma ci gën a neex moom mooy dañ koo ibbi Gàmbi waaye ay doomi Gàmbi fay liggéey ndax fii lañ leen defalee formation ñu dem Gàmbi mottali ko bu ngeen paree may leen ma ci mouchoir yi ma neen ma maa ngi ay ñaq yoo xam ne ci man gañ naa ñaq yi ñaq tey ku ñaqul doo gor <laughs> nga ni tey ku ñaqul doo gor ku ñaqul doo gor tey émission tëm émission Papa Ndiaye mais jàpp. Ah. jàpp man xam naa ni ma la bëgg ni ma la bëggee noonu nga ma bëggee. man xoolal damaa abonné sa TikTok de yéen ñëpp maa ngi ak seen i TikTok. Faat Sarr mi maa ngi ak TikTokam. Papa Ndiaye Thiou maa ngi ak TikTokam. mais Cheikh am na lu ma gis de. Makhoudia maa ngi ak TikTokam. Ndiap maa ngi ak sa TikTok. Ah. waaye photo bi sa ginnaaw tamit ñaawul de photo bi sa ginnaaw gëstu. mooy jëlof ci kan lii mooy jëlof ci kan. mi ngi toj réew mi ngi toj réew mi mooy mooy jëlëb chicken jaar na ci saafukaay yu bari xanaa maa la wax lii lii mooy jëlëb chicken ah, waaw lii mooy jëlëb chicken waaw mais dafa am loo ma waxoon ci lii mu ray ma keroog waaw nga ne lii boo koy saxal xale da nga naan xale bi kudd ci yow kudd ci man kudd ci man <laughs> loolu loolu man ma ko man maa attanul loolu loolu la ñu man maa attanul loolu loolu moom ñëpp yéen ñu toog fi yëpp mës ngeen ko def ñëpp a ko def xooyalal sa rak nan ko kudd ci yow ñaar kudd ci man <laughs> Amadou Sall Macky Sall sax def na ko <laughs> moo tax Amadou tax def na kudd ci bébé kudd ci man kudd ci man moo tax xamu ñun kër gër Kaolack kër gëweli xalé yi dogu juddi judd uh-huh. yi dañuy waaw sama rak ji nak sama moy sama caatu yaay bu mu ne ko kudd ci yow kudd ci man mu nan ma yow ni nga musé so kudd di reyna de ma ne ko noppi bi mbaaru xaaji kudd nga ko jox jox kudd bu kudd bu mat ci yow et puis et soo muusee soo muusee da ngay teg benn kuddu gu ndaw kudd xale ak kudd mag. waaw naan ko benn kudd gu ndaw ci yow. waaye ñaari kudd. <laughs> c'est que sama pol bi dama ko yóbbu. pol dafa jar di jël. non Pape dafa baax ci xale yi baax ci mag ñi. Hmm. léegi am na euh, fi mu toll nii Njàmbe Njàmbe Gueye mi ñu seetaane ba Suède. Suède Njàmbe ñu ngi koy kontaanee baax a baax ñu ngi kontaan ci euh, Njàmbe Gueye chéri euh, maman Adja ñu ngi koy bëggee. ngi kontaan baax a baax ci suñu benn xarit laay mi ñuy seetaane ba itali mi ñuy seetaane ba Italie euh, Habib Sen Presse jërëjëf ñu ngi kontaan tamit ci suñu euh, rak Aziz Fall Mouri mi ñuy seetaane ba foofu ca euh, nu mu tuddati Marseille mais ñu ngi kontaan ci Lamine Sissoko di kontaan ci lamin Diop foofu ca Elton bu bu bu bu Colobane ñu leen di kontaanee baax a baax Papa Ndiaye Pape Diagne chanteur mi ngi ñuy déglu mi ngi ñuy eh, seetaan Cheikh Gueye bëgg Bamba fi mu toll nii euh, réew maa ngi yëngu naayam faama ñu ngi leen di kontaane wax wëz laay ñu ngi lay kontaane bu baax a baax baax dafa mel ne morceau boo xam ni dama ko bëgg teg Papa Ndiaye woy bii su ma nee sa wayu ndëppale rek gëm. mais loolu naa la ko fetal mais Cheikh. waaw ma doy waar. ay ca ñëwal. ba états moo génn ak ay doomu ndeyam ñu ngi ñuy waaye déggal loolu. xam nga ne émission bi ëpp na. ñu ngi koy bëggee. ngóode doot ah kooku ne ko nek nek sar gi la saar gi la sar gi la gi la fat fat sarit it faw wax ci mom xale bu jigen la buy fecc mais xale bu beuri jom bu am la am fayda ci bopam adom yow tassare wo sa bopp waaw ah, defo sa bop rek torfa kala mar marchandise sum jaay ba pare cheikh dama la dara de mom mhm. faw ar fay ko fat sar bi waaw ndax du tànqamul ken deug la parce que Ndeye Ndiaye Banaya bi nga ko wooyee ma woo. Mm-hmm. Alima Ndione moo ko menacé. mu toog mu ne yëpp bàyyi Ndeye Ndiaye Banaya Alima Ndione na ko dàq mu daw mu daw. Fat Sarr moo engagé de. Fat boo demee da ngaa daw. am ci Banaya <laughs> nag nga ñëw. <laughs> Ah. dafa daw léegi nag. léegi morse bi morse bi laa waa Cheikh Thiam ma jox la morse bi. ak ña nga ca États-Unis ndeysaan ak Effie Niasse ak Pierre a ngay maa la wax lii leen yàgg na waaw bu soobee yàlla kon Cheikh lan la mu ñëw ma xool morse bi laa lay tegal Pape Ndiaye sa wayu ndëpp la su ma xoolee rek gëm déglu lii xalaas <laughs> xamul tax non xamul non foo pare pare naa fa man mi maa mën a fecc non déedéet eh, Papa Ndiaye dama Papa Ndiaye dama laa yàgg fekk ngay fecc ay clip mais morceau bi da nga ko fecc ba xam ne yow fecc nga ko fekk naa Papa Ndiaye di tourner benn clip clip bi muy tourner moom fecc na ko mais booy yi war a fecc clip bi fecc gunu morceau bi Papa Ndiaye di leen di yuxu ba leen di bëgg dóor day dóoree ci fecc mais affaire de mais dama bëgg yéen téléspectateurs yi ngeen xool Papa Ndiaye bi ni mu koy feccee du bàyyi du bàyyi guitare basse du bàyyi solo du bàyyi drums du bàyyi clavier du bàyyi tama ba sax waykat bi li muy way si Samb ba pap mi ngi koy fecc bi biir morceau bi seetaan seetaan leen pap waaye gëj naa koo bu ma juumee rek ngeen baal Youssou Ndour a mën a woy waaye pap moo mën a fecc xalaas Je n'oublie jamais mes ancêtres. J'arrête pas de penser aux anciens combattants. Que l'idée pour avoir la paix. Djarama, Djarama, Djarama, Djarama, Djarama, Djarama. salon. Je n'oublie jamais mes ancêtres. J'arrête pas de penser aux anciens combattants. Que lutter pour avoir la paix. maa ngi yëngu daay tàccul tàccul leen ma ko waay <laughs> non internet yi ñi ne ci page officielle bu Sen TV ak Zik FM gën leen partagé gën a commenté waaye di ci bàyyi seen numéro téléphone waxtu wu nekk dinañ leen bëggal yéen ñi nekkee ci Zik FM ñu ngi leen di kontaane fi mu toll nii Papa Ndiaye Thiou euh, fecckat bu mag bi ci réew mi la ñu dalal waaye tamit ak ay rakkam ku ci mel na ma xujja ku ci mel na njàpp waaye tamit ku ci mel na sama doom baay Fat mais dafa am benn morceau boo xam ne da nga ko way ko way samay xarit. yow yaa ko ah. way waaw. Papa Ndiaye dafa am benn morceau boo xam ne da ci way samay xarit. lu waaw da ci way sama xarit. ala alaajala saan Mbaye le griot VIP. Ah, waaw waaw da ci way suñu yaay ajaratu Xadi Mbaye ma saar tàccu leen loolu. waaye déggal loolu. morceau bi nag pap play back ko fecc ko ànd ak say rak. Serigne déggal li được miếng bài Mừng nghe đi bà nó đã hàm mò cái ác hò mà còn ngã đà là bà Nhu đuế sẽ si cục cổ âu cho con con ngã đà là Hey, bò nhập bà chê Hô bà, hô Đang gặp cái phát sân Lô lấy Yes, sir. Yeah, go there. dañ koy wax efficace fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko séeréer bi yéen borom Amérique ay loolooy dëgg fata boo jàppatee ku baax ku baax a baax a baax danga koy fësal looluy dëgg yaa ko def dañ koy wax fii ko fi def lu baax ñu waxal la ko ba mu neex cay ay ca leen sigal ma sa jéeg ma jaaga may sa joor ñëwal si si ay géwël la billaay géwél lañu biir kuy géwél dugal biir billaay géwél lañu biir jaay saa bay géwél xale mbay ma saa sëri ma sar ñan waaw sama yaay jee ngoor jigéen ji wër ko doxal maa ngi way bu baax ku teeral sa ndey kenn du la tee am teeraa nga yow yow teeral ko rek na joxe barke yow ngay bëgg xale mbay ay géwél lañu biir billaay géwél lañu biir man de la de la eh. I want that. ay eh. géwél eh. eh. la nu xoolal siga ma sa jeg ma jaaga may sa joor fat sar si si ay géwél la way lëmbalal xadi mbay ma sa yaay sama ma yónni ci yow way lëmbal am may ko ci sama jëm yóbbu ko yaay yaay yu fàllu ñan loo am may ma ca foo jëm yóbbu ma loo xam wax ma ko ak sa mbay lëmbal lëmbal géwél bu gën géer casa. ni nga juddoo jëfe ni nga jëfe Alassane Mbaye waxe ni nga waxee ci miw réew Alassane Mbaye man xaw ma fu la daan noon di jaar Alassane Mbaye waaye gis ma fu la daan noon di jaar Alassane Mbaye ni nga juddoo ci miw réew Alassane ni nga jëfe ci miw réew way fi lu kenn du dindi alu Alassane Mbaye Alassane ay waay Alassane Mbaye le waa ji Alassane géwél lañ ñu bëgg ku ci taaj sa loxo di métti ku ci sar xolle doo dee Alassane Mbaye <laughs> Alassane Mbaye dégg man xaw ma fu la daan naan di jaar man gis ma fu naan di jaar yow. eh, eh ni nga juddoo ci mim réew. eh Alassane oh, ni nga jëfee ci mim réew. eh Alassane Mbaye. Oh, waaye lu kenn dul dindi sama waaj. Alassane Mbaye. man xaw ma fu la daan naan di waay. waaye gisuma fu la naan di waay. ey séeri maana mbaay naa la wayal. ey séeri maana mbaay naa la eh, sagal. Mbay gewel gu ben geer xam nga naa la waayal Alsaan Mbay gewel gu ben geer xam nga sagal nga nu Alsaan Mbay gewel bu gën geer xam nga sigil nga nu wuy leen ma leen la mënal nag def nañ ko wuy leen ma suñu suñu yaay suñu yaay suñu yaay ajal su maam jaara faam honorable député nee mu ngi mu doomam ma a kon député yi ñu ngi yëg seen bopp fii waaw wuy ma nag eh eh mais naa waaw ma a wallaay suñu suñu yaay ju baax mais mais mais ma mais ma xuja li liste liste yi jëm assemblée gisuma ci fecc kat de te dafa raam. ankay am na. kan la. Ah, sama liste dem na <laughs> parce que xam nga maam Jaara Faam mi nga tudd léegi. waaw moom day jigéen ju mën góor. wallaay dëgg la. daa am fit daa ñëw na ma eh. hmm. yee. xam nga la dëkk la teree jël mairie bi. <laughs> Eh, al eh, wuy ma Papa Ndiaye du mairie bi de assemblée la ñu wax député. waaw mais mairie ba la ma proposé moom xam nga daa am fit. <laughs> na ma góor nga loo yambar xam nga loolu daa am fit. ma. waaye yow li muy wax yëpp maa ngi naan ko. Eh. fexeel ci tàkk rek yow. bu <laughs> ci tàkkee pare daa jël mbéy mi. non eh. teraanga rek la ma. laa ilaa da léegi. fu la gis ngàdd la. jili CSB nee na may nañ ñaari téléphone. jili CSB. jili CSB yónnee ko fii mu ñëw ci seex wala seex ñëw ci yow. bu ko waxee dëgg la de. seex benn man benn Fatou zéro mu xujjee zéro. ba jili CSB bu ko waxee dëgg la de. non jili CSB. waaw gaawal ci ñun. ma xamal la benn affaire ci moom. lépp luy électronique sama kër moo ma ko jaay télé ba may seetaane bi sama pap bi di seetaane sama clim ba ma tiim téléphone yi ma yor yëpp jili sees bi man moo may jaay sama xarit la ñi bëgg lu baax yëpp moo may jaay def defal ma ci njëg lu yomb nag toor fa kan moo ko jël fii ci rond point kër cité kër góor léegi fa ne léegi na fa jaar léegi du publicité de léegi xam nga nu may def arla bool arla bool léegi. Bougane xanaa xamoo li leen nappe naan day ay ca bëccëgu tey ñu ngi ànd ak TDK mi nga xam ne moo ñu dul déodorant déodorant nag dafa nekk loo xam ne mënut a ñàkk ci jamono ji muy góor du jigéen da nga ko war a mën a am muy déodorant <laughs> like ñi dem ci soirée yi. léeg nga dem ci soirée. loolu jàpp wul jàpp waaw. léeg nga dem man man vraiment parce que déodorant mi. waaw. baax na ci bokkataan yoo xamante ne dañuy xeeñ na dut kenn du déodorant. Cheikh mën ngaa yeggali. déodorant like wuti leen ko. yéen ñi dem ci salle sport yi bàyyi leen di gàddu àq yéen ñi dugg ci soirée yi bàyyi leen di gàddu àq yéen ñi dugg ci tataay yi kinglong yi jakarta yi bàyyi leen di gàddu àq yéen ñi risonti ci marché yi bàyyi leen di gàddu àq pokataan dañ ci war a def déodorant rawatina déodorant like demal TDK boo demee di ko am ci ruqu disket jënd jaay baa jënd jëfandikoo Papa Ndiaye ba tey dama lay indil loo xam ne ay ay son yoo xam ne benn bu ci nekk bu ma ko tegee dalay fàttali lu bëree bëree bëree bëree bëri morceau bi laa lay tegal Papa Ndiaye euh, déglu xam nga ko yàgg nga ko fecc te dalay daaneel soo yu ndëpp la ba tey déglul bi man wax na li ma xam jom daal second to yor sës bu ca fas wala jiitu foog ne yaay gañee daal mbooloo maa ngi lay xool musique bi métier la bum bi bi ñaat baaxul liggéey yëngu É, aí, Gaiden! géwël sabar faat jàpp eh, jóg eh, eh. ma xuj a jóg am na fecckat yu yegg si de xamal naa la ko am na fecckat yu yegg nii nii nii ah, am na ñëw ci suuf di ma le le tey dëkk bi yëngu de leen de xamal naa la ko fi mu toll nii Pape Mbaye suñu benn grand la bi ñuy seetaane ba Italie nee na Pape Ndiaye buy fecc damay jooy Italie la nekk suñu benn grand bu tudd Pape Ndiaye jili CSB woote na léegi nii nii moom laa doon waxal bi ma sëggee ci suuf njàmme ne ne suet mi ngi wàcc. <laughs> dina gën a wàcc. eh les meilleurs fi ñëwaat na xoolal. waaw du meilleur de dañuy toppandoo rek. non man maa ngi doog comprendre ne émission bi mooy numéro ah maa la wax lii. mais Cheikh numéro un yaa ngi bëgg a bari nag yow boo def ne mooy numéro un waaw dafa am loo xamante ni dafa xewoon ma xuja. Uh-huh. te jamono dafa yëngu. Mm-hmm. buñ duggee ci hôpital yi. Mm-hmm. ñuy wax ni lii xew na fa lii xew na waaye tamit danoo war a wax it lu baax liñ fa fekk dama seete aas suñu copain bi dëkk Tëngéej benn rakkam am problème fekk ma yor oto mu ne ma dimbali ma nañu yóbbu booy bi ci hôpital ma ne ko hôpital bi fu mu ne mu fii la ne Youssou xaw ma fa mhm. dama ko seeti woon quoi ñu dem fa nag gardien bi ak yéen xamante ni ma ne fa di xuloo moom mhm. am ku tudd Papa Ndiaye moom muy directeur bi ñoo ne ma mais Pape yow waroo xuloo yow waroon na fi di xuloo ma ne ko moom dañu am malade Mhm. ku am malade day stressé. ñu ñëw fii mu naan war ngeen gaare fii ak war ngeen jaar fii ak war mu ne ma man maay directeur bi gaare sa oto. Mhm. ñëw jël malade bi ma ko jël yóbbu ko. jëndal ñu añ dooleel ma essence ba pare jël sama numéro. ndeysaan c'est-à-dire buñ ne rek. Mhm. fecckat yëpp a bon. waaye buñ ne fecc yëpp a baax. waaye agression bi ci réew mi rey yi ci réew mi bëri na démb la fa xew démb naqari na ñëpp metti na ñëpp. foofu tamit dañ fiy ñëw ndax ñun ay Pikine lañ dëkk Pikine il faut Sénégal comprendre leen. Mhm. jamono niveau bi dafa caméra de surveillance yi ko am ci bi mhm. Cheikh man Angleterre. Mhm. mais Angleterre c'est une bu ëpp xam nga pas caméra de surveillance nit du mais caméra de surveillance yi na ci mais problème bi les dañuy masque ak ay kagul. masque yi kagul yi moo tax lu wax la sécurité biñu soxlu ci police mënu ko gérer gendarme mënu ko même buñu amé effectif bu doy joxuñu len li tax ñu gérer bi ci tégué bu politiciens pour réew avancer ñu ngi nax suñu bop bo sétlo politiciens ci sen discours yi ñu wessu courant yaangi coupé xuy ndox mi doyut benen bi ci tégué marchandise yaangi cher bi ci location mais euh, euh, politiciens sen discours yépp lan sama candidat dañ ko téye coalition bii laa bokk coalition mooy gën jàppale leen ma bu ñu leen bëggee te ñu ne yéen askan wi gën leen ngeen xeexal ma ñi xeexoon ca coowal marché ba am na ñoo xam ne dee nañu seen i mbokk ñàkk ñi xeex ci coowal marché bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi ba léegi nii seeni yaay papa doom ñooy dajale li ñu yot di leen yóbbul ndékk añ ak reer leader ba ñu doon xeexal fekku leen fa yeewu leen léegi nag li ñu def nag mooy Papa Ndiaye ah. waxtu yi daf ñuy xaw a xat moo tax morse bi laay tàggoo moom laa bëgg ñu tàggatoo ko rek yëngal dinañ tàggatoo bu marché bi jeexee ñu tàggatoo mais waa Sen TV waxtu Sen TV waxtu leen neexee rek ñoom mën nañoo këf mais ñun dañuy continuer ci fépp nag waaw dañuy continuer ci fépp mu ngi noonu. Eh! Fat loo def baax loo def baax na tout est permis <laughs> é Young Ajá. visa ambassade visa. laa ilaha illallah. yow lëmbal rek nga bëgg seex. lëmbal sama laa ko tuddee. sama xarit bi da Omaro nee na ça mais papa papa Ndiaye. lëmbal fi mu toll nii page officielle bu Zik FM. waaw la ñu yi di seetaanee nii may wax ak yow nii nii nii réew maa ngi yëngu page officielle bu Sen TV euh, instant bi Sen TV ñoom. dañu def benn public reportage mais ñun ñu ngi continuer ci page officielle bu Zik FM ñu ngi en direct ba tey ci Zik FM Pape. vraiment tey jotaay la boo xam ne jotaay la bu ñëpp kontaan ñëpp bëgg nañ ñuy bëggee fecc te xam fecc bëgg nañu Pape. Mhm. dañ lay bàyyi rek nga waxaat ak euh, réew mi ñu bàyyi tamit njàpp tamit waxaat ak réew mi ngeen nuyu seen i xarit nuyu leen ñëpp kontaan nañu daal. man li may wax mooy yàlla na Seydina Mohamed teral amin waay nga wér yaag seen njaboot waay amin waay ak mboolum julit ak Wow wow, waaw waaw ndeysaan moom warul di daw booy pikin la daa daw res de Fat Sarr mooy ñëw rek mu daw bu doon bànnayaa da koy xaar maintenant ah, waaw mais nag mais nag mais da koo def ndaw ndaw lu sawar te bar yow miy seetaan di jabaru seex li jëndil kaa bi bu yegg si <laughs> vraiment sama doom baay bii mais seex lii ma dem mën naa ko yóbbaale bu lay neex jëlal yóbbu waaw bii moom yow booy jëm jëlal bi ah Fat Sarr may góor ñi nag njàpp njàpp ma xude nag góor ñi nag duñ toog a ca léegi njàppam ma ko jël ba leen tegal bi ku gañ a jël. <laughs> bëgg naa loolu. Ah. léegi nag léegi nag Mafou. kat baax na ah, sànq Seex dafa génn fu am solo. Mhm. ndax vraiment ñun benn lañ. Mhm. ku ci dugg kër jàmbur dóor ko jaasi jël fa wóoloo fa warti jël. buñ ko xoolee ba ci biir sa mbokk la. dégg naa dëgg. juum baaxul. Mhm. yàkkamti baaxul. gis nga wërsëgu ren. Hmm. mënoo jooyoo jooyoo jooy ba suñu borom jox la ko. dëgg dégg naa dëgg. wërsëgu déwén. waaw kenn du la ko jox ren. déedéet déwén rek nga ciy jot. déedéet déedéet wallaay dëgg. kaas yee guux wute waaye ku yewu la ku xeebul sa noos nag booy ba wax na ko. ku xeebul sa noos. Hmm. kenn dàqul laa noos. wallaay dëgg. lu dëgg. dëgg la hmm. yor jaas yi xool koo ëpp doole ñëw teg ko ko. yàlla ëpp doole fopp te mu ngi lay gis te bu ko neexoon. bu leen de bilaay dëgg la ñun ñun kaso yi neexul bu ñu suñ benn mbokk di dem kaso. kaso yi neexul li xew ci dëkk bi temps yi dafa metti ñëpp. dëgg la léegi nag xam nga nu may def ku yabu di def ni may def man léegi seex seex su ma jullee deux heures ci ngoon comme nii. damay tëdd damay tëdd jëmale suba parce que ba deux heures ma yeewaat dëkk bi wóorutul. mais tëdd mais tëdd dëkk bi wóorutul mais mais dama ne la même sa kawlal boobu ngay tëdd sax amoo fa sécurité. wuy yaay kon ne kon. lu leer laa la wax léegi kon fu ñu jëm. fi mu toll nii réew mi fenn amul sécurité lal ba ngay tëdd sax amul sécurité. sama ah. yaay laa koy jooy ak jili CSB. Mhm. sama lépp lakk na seex. sama studio bee mënoon commencé lépp lakk lépp tey coupé na ñeenti yoon balaa may génn sama kër. luy wax nii. wallaahi al azim barke Serigne Touba yoon tey ñeenti yoon. te xoolal politiciens yi ñuy wax ne ñoom dañoo bëgg réew mi boobu ba léegi nii déggoo kenn ku wax ci coupure courant yi xëy na seen i kër dafa am group politiciens yi laa lay wax de dama ne la dama ne la réew mi su réew mi bu ñu yaakaaree politiciens yi ñuy defar réew mi ñu ngi nax suñu bopp. réew mi ñun ñoo ko war a mën a defar. parce que politiciens yi boo xoolee seen discours yi ñu génn yëpp yëpp ñu waroon coow ci dépense yu cher yi war a coow ci location yu cher yi war a coow ci dund gi yokk. war a coow war a coow ci coupure courant yi. xoolal xoolal Papa Ndiaye war war a coow ci coupure courant yi. waaye seen coow leen la. mooy sama list dana dem liste bee du dem liste bii du dina dugg bii du dugg na loolu rek la ñuy wax werante affaire égoïste daal lañ gën a gis kese bopp réew mi nit ñuy rey nit ñi comme ay weñ léegi sa place bi xoolal ndaw si xoolal ndaw suñu ndaw suñu faat démb ca ca ca ca pal jigéen ju am jom la ñu faat oh. jigéen ju am jom la ñu faat jigéen waaw da da da ñaari bakkan la ñu rey dañoo dañoo dañoo fekk jigéen ju am jom ci bërëbu liggéeykaayam ñu daal di koy faat mu ñàkk bakkanam doom ja biiram amoon cinq mois ñu faat ko léegi réew mi bëgg continuer noonu ba kañ ba kañ réew mi di continuer nii ba kañ est-ce que comprendre nga man nag benn solution rek laa ci am parce que Papa Ndiaye man am naa yaakaar ni bu dee police ak gendarmerie mënuñu assurer sécurité réew mi parce que benn même bu effectif bi doy bu doyee joxuñu leen matukaay bi matuwaay bi war bi war des fois guddi jot ngay dawal sa oto ba santeeg benn policier ngay toog di waxtaan ak moom benn cinq minutes bu la waxee métti tam nga xam ne ñii ñu ngi dund lu métti. dëgg la nga santeeg gendarme ci ay minuit une heure du matin deux heures mu monté bu la waxee li muy dund sa xol bi day jeex. dëgg la maanaam indemnité yi ñu leen di fay dafa nekk ay salaires yoo xam ni li ñu leen di fay dafa nekk ay salaires yoo xam ni mënut a yor sax liir. donc dooleeluñ leen pour dooleelul dooleeluñ leen pour ñu mën a yor sécurité réew mi beneen bi. beneen bi ci tegee ñoom des fois seen sécurité boobu la gën a tal sax ko sécurité sécurité toll nag ñun sénégalais lamdaay ñu ñoo mën a jël suñu sécurité bopp ni ñu koy jëlee lenn la mooy. waaw wax ji du neex. Hmm. te loolooy dëgg. dëgg la agresseur bu nu jàpp ñu xam ne yow da agressé nga yor fetal maa nga yor jaasi ñu jël la roof la ñaari pën sotti la essence tàll ba nga tàkk. bu ñu ko defee ñett ba ñeenti agresseur réew mi agression bi dana wàññi parce loolu ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp ñun askan wi wax bi neexul de mais loolu am. 50 personnes di da gis ñaar di agressé ñaar. dëgg la cinquante personnes di seetaan. waaw mais xam nga cinquante personnes. non non non seet. cinquante personnes yooyu bu ñu dalee waaw waaw. mais noonu la gisee ñaari nit kese ngeen nekk cinquante góor di seetaan. moo tax ñaari moo tax lébu yi lébu yi dama leen di sant di leen gërëm. Ah, tax ndax yoof gii boo fa duggee da tax dañ lay jàpp dugal la ci saako takk la ba def ci benn ba digg géej bala fa nga nga digg. gox eh. mbaaj ak gën ndar gox ak gox gox mbaaj ak gën ndar gox ci bii fii ci Saint-Louis. sàcc fa dugg bu ñu jàppee sàcc dañ lay dóor ba nga wow koŋ ñu jël ay saako suuf takkal la ko yóbbu la ba ca bël ba diigal la fa. foofu déggatoo fa sàcc. parce que parce que population bi population bi ñoom ñooy jël seen matuwaay gis nga

yéen xale yu góor yi nga xam ne yéen a fa dëkk parce que mën ngay jël sax ay gardien gardien yi ñëw am neneen lu ñu doxe mais xale yu góor yi ne ci koñ ba ngay woo ne leen un mois ferme jóg leen ñu mànkoo doon benn wut leen seen i kagul takk wut seen i masque takk sàcc bu ngeen jàpp agresseur bu ngeen jàpp biir zone de captage ngeen dóor ko ba bu ngeen koy delloo morgue ba la jëm waaye du dem police su ngeen ko defee un ah man moom man moom Pape Ndiaye Pape Ndiaye Pape Ndiaye man damaa xamul fu ragal di nekk yow xam nga ma man xaw ma fu ragal di ci nekk ci doomu aadama benn man man xaw ma fu ragal di nekk ci doomu aadama wër naa ko sama jëmm ji gisuma fu ragal di nekk su ma dee ragal yàllaay ragal te ragalu ma ko dama ko rus yàlla dama ko yàlla kenn du ko ragal yërmande ëpp na suuf ëpp na asamaan boo ko boole waaye ku am yërmande googu loo koy ragale dama ko rus mais ragal fu muy ne ci jëmmu nit dama ko gisut dama ni la man ku ma dogale di ma agressé su ma yoree lu lay rey dama lay rey du ma tëdd sa place mais du buñ la jekkoo dañ lay rey nga perte sa njaboot perte beneen bi ci tege ñoom ñu denc leen deux ou trois mois six mois génne leen ñu doxat ci njaboot gi léegi nag léegi nag mooy li ma la rek kenn ku ne na jël say matuwaay kenn ku ne na jël say matuwaay ku mën a am pistolet bu am bu am fetal gu am këy wuti ko nga denc ko parce que yow mu ne sa biir néeg di nelaw nekkoo ci sécurité yow mi sa place yow mi jamono ji yow mi nekk sa biir sa biir euh, bureau di liggéey nekkoo ci sécurité yow mi ne sa oto di dawal nekkoo ci sécurité yow mi nga xam ne yow yaa nekk ci sa place di liggéey nekkoo ci sécurité rawatina yéen ñuy def transfert d'argent nekku leen ci sécurité wut leen lu leen sécuriser ginnaaw yàlla. lu ko may da leen rey ngeen perte. mbaj yàpp ñun fecckat yi wax dëgg yàlla ñun ay 2000 ak 3000 la ñuy yor ñun du ñu yor dara. ñun mën ngeen ñoo jéggi rek ñun du ñu yor dara. non man sama mag mës naa xewle di di may dem Kaolack. waaw ñu kar ma buntu Pikine dëgg maa ngi yor soixante dix mille waa ji dafa jékki rek pàdd ma ne ma andi ma ne ko jox. loolu loolu mënoo ci sax mënoo ci sax nag. mais lu tax nga koy nangu parce que xamul tax njàpp loolu yow mënoo ci sax. xam gars yi dañ naan noo man buñ ma fekkee téléphone buñ ma laa ma jox parce que alal ji maa koy liggéey liggéeyu ma xamul tax loolu moo war a jeex xamul tax mu war a jeex njàpp sàcc bi la sàcc dafa am doole am fit dooleem jooju ak fitam jooju bu ko defoon ci benn métier raw la ba di dimbale léegi nag yow miy sàcc boo amee sa doole ba ak sa fit man mi ngay sàcc ma am sama doole sama fit wóolu ko ba ñu jaayante bakkan fu mu yem neex yow Papa Ndiaye fekk nga Papa Ndiaye laaj ko am na fu ñu fekkante ma ak moom am ñun doon napp am ñun doon napp laaj ko am na am na fu ñu fekkante am ñun doon am eh Papa Ndiaye ni ma ngi ni ci rajo laa nekk di wax am na fu ñu fekkante woon nit nit ñëw di ñu napp ñu ak Papa Iya. muy jaay bakkanam ma jaay ko suma bakkan jaasi laa jël. jaasi. ni ko ñëw ñu joxan tey bakkan fu coolo fu coolo mujj dafa jeex gis nga nit buy dof da ngay gën a dof bakkan benn la nit bu mu la gën a bëgg bakkanam ma ko jël waaw yow wax nañ la la ma defan kasso non yow moom yow parce que ay parce que moo ko gën a lu man dem mais papa Ndiaye xam nga fan nga ma dajjee bi ñuy dem Gambie bul sonn ca Gambie gu njëkk ga hmm. papa Ndiaye man boo ma ne rey ma rey la non kii barki maam Serap Fall sama gàmbe gi nag da nga wax yéen yaa Cheikh Sarr seen kii ba. maanaam yëf yéen nangaan sàmm. moom mi sauvé naa ko de. nangaan sàmm. ma ko jëmi. daa yàgg yàgg nga maa sauvé ma ko jëmi ma ko jëmi sauvé naa ko de benn jour moom it. xam nga damaa bëgg jigéen. oui dégg nga xam nga damaa faam. oui ma. ma ko jëmi waaye dina Cheikh Sarr di wax ma waaj naa. <laughs> sauvé naa ko de benn jour sauvé naa ko de benn jour. waaw ñun daal bëgg nañu yàlla yàlla defal ñu jàmm. yàlla sàmmal ñu suñu njaboot boo boo bu ngeen gisee ñu waxee nii xol. Mm. soo gisee ñu waxee nii xol. Ah, Papa Ndiaye. ñaata réew nga tukki. mënoon nga fa dëkk toog fa. na ci sa jàmm. ma xujja ñaata dëkk nga tukki. mënoon nga fa dëkk yu gën a développé Sénégal njàpp. ñaata dëkk nga tukki gëna développer Sénégal Fat sar man mi mënu nañ fa toog waaye bëgguñu ko ñun li ñu bëgg moy suñu réew mi di Sénégal parce que fi lañu xam fi lañu min fenen fu ñu dem gan lañ fay doon même bu ñoré passeport réew ma fi lañu xam donc suñu Sénégal gi bu ko ay nit naré yaq ñun ñu jog ñu jóg ñu jog ñu jog ñu jog jàppante ak ñoom parce que li ñuy wax ni luñu mënta fajj la parce que yalla néna bo gisé lo nakari wax ko ba ñëpp dégg soo ko mënta faj nag ci wax jooyal ba ñëpp dégg ko mhm. boo ko mënta faj ci jooy nag nga jóg nag jaayanti ko te réew mi nag ñu ngi koy bëgg yàq te bu ñu bay bay lee lii danañ dem ba nit dana bëgg dem julli ci ci jàkk ja mbaa ci jumaa ja mbaa église te doo dem te li ma metti mooy ponkal la yoo xamante ni bu ñu liggéeyu ñoom am lu gën a sedd loolu liggéey am teraanga moo gën a moo gën a sedd sàcc parce que àq yi ngay gàddu ak li la mën a fekk dafa bari te liggéey nag moom xoolal ku liggéey yàlla fay la. dëgg la ku liggéey fayee ko. amul kenn kuy liggéey te dul fayee ko. Cheikh. Mhm. yàlla sa jàmm yàgg. amiin mon frère. yow de agressé woo kenn sàccoo portable yu kenn <laughs> fii nga toog di bëggal sénégalais yi ah di bëggal kii ñu gën a kontaan ci yow Fatsar ma xujje kontaan naa njàpp. yàlla na jàmm yàgg. yaa na woon nag boo ñëwee fi da ngay wax sa papa Youssou Ndour yaa ngi ma xujja wax leen ak seen père mi ngi noonu. ayca doo ko tëj. non suñu papa Youssou Ndour dañ koy sant di ko gërëm. Mhm. xam nga bi fii réew mi toll nii sama rakk ji day fecc lu neex may fecc lu neex Papa Ndiaye di fecc lu neex de suñu mag Fassar mi di fecc lu neex bés yi ñun ñoo ko war a toj ba mu nooy nepp. vraiment ñun loolu lañ bëgg. waaw bu dee fecc bu dee fecc mu bees de yére ko fi génne. non ñun ñoo réew mi ñoo ko téye suñu loxo. lu ñu fecc mu neex. dañoo bëgg nag suñu papa Youssou Ndour non boolewuñu ci ñuy dem Bercy. yéen bu leen ci boolewul sax bu leen ci boolewul sax yéen Bercy da ngeen fay taxaw da ngeen fa mas taxaw taxaw yu fekk naa la fa. ñam naa na ma fa. walaay day sax te yedd naa leen ñoom naa leen nee nañ duñ daw. wax nañ ko de. man de ma ko jëmee dama ko dama ko yóbbu ndàngaan sàmm mu daw. non kii moom du demaat ndàngaan sàmm moom. Ndiaye man moom dafa am lu ma dese lu bari senegal kii li legem gëmoon la gëm doo daw kii li ma gëmoon la gëm doo daw wuy ma di wax nag eh, monsieur le maire sama sama secteur ah. moom mi ngi ñuy seetaan moom tamit ah waaw ASC Pikine hmm. moom Gueye monsieur le maire maa ngi kontaan ci yow yaa ngi bëggee ah, di sama mer boobu nga xamante ni du yow ci man di li CSB grand papa Ndiaye ba hôpital Youssou Mbergane bëgg Macky ba mu jeex mi ñuy ak jabaram grand Sapo Capo jàmm ci yow li yëpp yaa ko moom li nag ñu ngi koy may suñu yaay Marème Faye Sall waaw di ko wax ni courant yi yàq na suñu bagage yëpp dëgg la njàpp amatul oto bu ko yóbbu Kaolack ma xujja amul oto bu ko yóbbu Jurbel dëgg la Faat nag moom lu mu am jox ko yaayam bilaay ko jàppale jigéen ju mën góor la Faat Sarr loo ko jox mu ne la sama yaay bilaay ndeysaan ah yaay Marème Faye ba pare nag Cheikh hmm. dégg nga lim déclaré lu mu déclaré. affaire am bi dafa am ay yeneen gaa yu fa dugal yeneen affaire nee moom dimbali ay nit la wax laajul kenn carte d'identité. affaire affaire ban. kii kii bi euh, service Sénégal bi <laughs> non da service Sénégal bi dañuy dimbali nit ñi ñi fa nekk di liggéey moo ko di laaj nit ñi ay carte d'identité ak ay këyit. du yoon nee na waxul loolu. <laughs> du moom dimbali la wax. te di man nag na ko njëkk ci ñun sonn <laughs> maman sonn nañ bien. léegi xam nga nooy def nag. Euh, sant la gërëm la Papa Ndiaye. tey mon tey Cheikh. sant la gërëm la dañu yàgg.

Eh, ma xujjo yewit ba ma la xamee ba tay muso soppeku ni nga mel. deug la deug la. Eh, njàpp man boy lim say fans def ma ci numéro 1 wa Cheikh kon tejeel ma xujjo bu bes ba ma kii Baba Ndiaye Baba Ndiaye. waaw defal ma xujjo Baba Ndiaye la la lan la xujjo fu nekk ci yow. wa fu nekk ci yow. Baba Ndiaye fa Fat sar nak mom def naa ko suma moom. ah ah ah madame lijjanti lolé eh. Baba Ndiaye mom dafa ma faté mais dafa ba may doog a tëll. waaw mos nañoo daje ñu indi suñu ben mort sen single ba. mom ñu tax ñu gën am jom mom ci la bok deug la parce que dañoo ñëw di ko wax bu isbi mu ne ma boy bay na mu ne ma bu baaxul duma ko teg de lan lay wax lu waxam ne ma ne ma gis nga boy liggéey da ngay liggéey lo xamantene tay ji bu ma ko tegee nit ñi dañu ko mais ci boobu lu ngeen ci doon wax ñëwal hmm, mooy taa ma ta ma nak ta ma diri bi ta na ma da wo moy nga naan sama rabara pax si di bi da ah. oh. une deux trois quatre cinq six weer baa ngi may xool saraba diggi di katcha ko rugg di si di bi sal Cheikh naan ma booy da ngeen di góorgóorlu ngeen génne loo xamante ne xam nga ba tey ji ma dégg ay waxam ba tey ji maa ngi ci temps bi. barke sëñ Tuubaa Mbàkke da ngay nekk ci Xadi Mbay ba Sarr sa yaay ji la ngeen fu ngeen bëggee ma tëjee da ngeen bëgg ma fan ngeen bëgg ma tëjee Papa Ndiaye Thiou ay géwal lañu fu mu nekk ci yow parce que sama sama sama jarbaat baa ngi fi moomoo moo war a def 14 ba euh, non may ñu ma xujje ba 18 heures may may ma ñu yaa ngi ma jub yaa baax ci man Serigne Dada Mbaye yaa baax ci man doomu ndeyu Babacar mooy Serigne Nabou Baye Bamba Baye day dox yaa baax ci man. aji faal na mooy Serigne Mame ma jub ma jub yaa baax ci man Ami Diallo yaayi Maxtaar Serigne Asi Diallo eh moo baax ci man. được mía cái bài Mune đi vào nó đã hàm mơ cái ác ho Và huế sẽ mà còn ngã đá là ba Như đuế sẽ cố cố âu cho con ngồi lại Việc đuế sẽ thả lửa con ngã đá là ba Hey, bỏ giá bà Hả hả hả hả Đang gặp cái phát sân Lôi lôi đực koy wax efficace fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko série bière ay wa looloy dëgg la baax ey boo jàppatee ku baax a a da nga koy yaa de yaa ko def dañ koy wax fii ko fi def lu baax ñu waxal la ko ba mu neex cay ay ca leen sigal ma sa jég ma jaaga may sa jox ñëwal si ay géwël lañu billaay géwél lañu biir kuy géwél jógal biir billaay géwél lañu biir jaaye saa bay géwél xale mbay ma saa sëri ma sar ñan sama yaay jee ngoore jigéen ji wër ko doxal maa ngi way bu baax ku teeral sa ndey kenn du la tee am teeraanga yow yow teeral ko rek na joxe barke yow ngay bége xale mbay ay géwél lañu biir billaay géwél lañu biir ma ne la ne la jaay yaayu Awa Njaay biir ay géwél la nu biir xoolal siga ma sa jeeg ma jaaga may sa joor si si ay géwél la nu xadi mbay ma sa njaay sama ma yónni ci yow loo am may ko ci foo jëm yóbbu ko yaayu jibi yaayu fàllu ñan loo am may ma ca foo jëm loo xam wax ma ko alsaan mbay géwél bu géer la bëgg alsa mbay géwél bu gën géer sagal ngan yóbbu ma yóbbu ma yow mbay sama ma bëggal ko ci Cheikh yaa ngi gaañ de xam nga yaa ngi gaañ géwél bu gën géer géwél bu gën géer alsa mbay géwél bu gën géer géwél bu gën géer alsa mbay seeni maana mbay xam nga gente me